Tu es rendu avec, ne passe pas par là, ne passe pas par là. Non, ne passe pas par là, par contre. Mais l'année début, tu es rendu avec déjà. C'est clair, Auguste. That's all. That's all. That's all. Allô, allô, c'est bon. Je suis du Mohamed Mandel. Allô, allô, allô. Trouver des épreuves. Bon, je fais ça longtemps tout de même. Enfin, il est professionnel. C'est bon, tu testes le micro, c'est normal. Mais non, pas Pas couper le micro, laissez déjà les gens rentrer. Ok T'as pas testé le micro, t'as pas testé le micro, il Il y a des décalages entre toutes. C'est normal pour le live. S'il y a des décalages, J'allume le micro. Régis. Regarde. C'est 5 minutes. C'est 5 minutes. C'est 5 minutes. C'est 5 minutes. Non, c'est bon. asalaamaaleykum ah, mbokki Sénégal ginnaaw bu ñu sante yàlla ah, di masawu askanu Sénégal di jaale askanu Sénégal ci tiis bu ñu yàlla natto depuis quelques jours mbokk yi lii laa gisoon ma waxoon ko te mm, maa ngi am mettit lool parce que lu ma doon ñaan yàlla yàlla musal ko askanu Sénégal mel ni moom lañuy dund tey nii wax ji nu ko tubaab yi di waxee l'heure est grave te le génie du peuple sénégalais daanaka yàgg nañ dund ay situation yu metti wante yàlla yàggal nañu suturaal ba ñu génn ci te dama ci am yaakaar incha allah bii tamit dinañ ci génn incha allah moo tax mbokk yi du ma sori ci wax ci kàddu yi lu ko waral bugguma commenter lu tubaab bi wooye parodie de justice parce que askanu Sénégal amul kenn ku ci am xel ñaar ci justice su Sénégal tey lu muy exécuter ci ay commande politique ak tamit lii di responsabilité justice du Sénégal tey ci mettit cu askanu Sénégal di dund ci seen yenn décision yi parce que jàppewuma ko comme condamnation lu ma ko jàppee mooy disqualification ak élimination luñ ci namm ñoom mooy bëgg a organiser sélection te bañ a organiser élection te may biralaat encore kàddu yi di ko jëmale ci président de la république président Macky Sall président maa ngi lay ñaan ci yar teggin nga dellu sa xel parce que président Sénégal jiwu la lii suñu mbokk nga suñu président nga loolu la yàlla dogal loo ñuy teg suñ na ko tegoon tey doo nekk président du Sénégal seetaatal sa taxawaay président wax naa la ko ba ñu yàlla may ñu toog amoo fi noon dégg naa sa ay kàddu ci dialogue bi bu ngay ubbi dialogue bi am na sax ay sénégalais yu xaw a ñaawlu peut le ton wala le mots utilisés président man pour que Sénégal am jàmm man nangu naa raam ñaan la yow parce que jàmm bi ngi sa loxo parce que lu fi yee tey fitna Sénégal xam nga ñun xam nañ te yàlla mën na seede président ne nga waxu troisième mandat nañ la ko ñaan ci njëkk dama ne su nekkee loolu lañu nar a def pour que Sénégal am jàmm man Barthélémy Diaz en tant que maire de Dakar maa ngi leen ñaan ci njëkk waxu troisième mandat bi président nga teg ko ci suuf en tant que acteur politique président maa ngi lay ñaan ci njekk waxu troisième mandat bi nga teg ko ci suuf président de la république en tant que rakk ci yow maa ngi lay ñaan ci njekk waxu troisième mandat ñu teg ko ci suuf ma yokk ci tamit ma ñaan la ko ci njekk ak ci yarak teggin parce que lu ñuy dund tey nii jaru ko te lii yépp lu ko waral mën nañ juum wante lu ko ragal euh, lu ko waral mooy lu ñu xalaat ci waxu troisième mandat te tey mu am ci askan bi ñu ci bëri ñu jàpp ñu ni que yow da éliminer ñépp pour mën a toogaat fii te président yow xam nga ñun xam nañ te yàlla mën na seede wax nga sa gémmiñ suñu nopp ba ngay def référendum te xam nga lu constitution wax te président violence bu ñuy gis tey yépp lenn rek ko waral te mën naa juum et je pense que waxu troisième mandat bi soo ci nangoon yàbbi ci daanaka xol mën nañ féexaat moo tax président may sàkku ci yow nga génn wax ak sa askan wax leen lu ñu mën a dégg parce que président nooteel bu ñuy wootee Sénégal jaay doolee bu ñuy wootee Sénégal mënatul continuer kon nag président xoolaatal sa taxawaay parce que ñu nekk ci mbedd yi mu neex la mu naqari la yaay seen président te bañ lay fal dañ la faloon ngir yaakaar musuñu la fal ndax lu ñuy gis tey nii di ko dund tey nii loolu xel musu ko xalaat te loolu dara jaru ko ci àdduna fii yàlla rekk fi nekk keneen nekku fi am yàlla mooy buur ñàkk yàlla mooy buur amoo fi noon wax naa la ko di bérilaat wax ci président dañ la bëgg dimbali ndax yow nga mën a dimbali Sénégal ci ban anam dimbali la pour xool naka lañ lay wutal yoon nga génn fii par parce que mooy sa cër président président sélection bu ngeen nam ma def Sénégal kenn mënu ko fi nangu parce que constitution lu mu leen may ci sañ-sañ mooy ngeen nangu organiser élection sélection bi dafa yàgg ñuy toog di muñ di muñ tey nag yàlla wane na boppam yàlla moo de moo décidé que sélection jeex na may sàkku ci yow tamit nga nangu loolu président moo tax président je crois que ne nga du am benn sujet tabou ma ne la comme amul benn sujet tabou ñu waxtaanee lépp parce que ci waxtaan la lépp xaj may sakku tamit ci askanu Sénégal ñu bàyyi xel ci lu ñuy wax parce que ba Sénégal doone Sénégal ba tey mbokk yi yàgg nañ fippu yàgg nañ wane suñu naqar wante kenn musu fi am ndam kenn musul egg au pouvoir par une violence absolue te wax naa leen ko ne naa leen lu fi xewoon mars deux mille vingt et un yan laay waxal askan bu bëgg ngeen bàyyi ci xel parce que askanu Sénégal da ngeen am xel macha allah bàyyi leen ci xel lu fi jotoon xew ci mars deux mille vingt mu bettoon ñépp wolof njaay nag ne du la bett mën la waxoon naa leen bàyyi leen ci xel depuis quarante huit heures su ma jumalee am nañu egsi fi Dakar mais profité ci occasion bi Dakar pour souhaiter à la Grande Muette la bienvenue chez eux, la bienvenue dans leur capitale. Les inviter à continuer à rester cette armée républicaine exemplaire, aux côtés du peuple sénégalais. Mais je voulais vous rassurer, vous, cette Grande Muette, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Nous allons trouver un dénouement heureux à cette situation. Nous sommes des acteurs politiques. Nous sommes un peuple mûr. Dañuy sàkku ci yéen nag que vous puissiez nous Mais à vous, le peuple sénégalais, leen xel ci lu leen wax. Si on ne s'entend pas, que personne vienne dire que gisee ko woon noonu wala dégg ko woon noonu kon nag maa ngi sàkku tamit ci tous les acteurs politiques de tous bords y compris suma mbokk yu nekk biir opposition ñu seq ak ñoom suñu Yewwi Askan Wi ak suñu F24 dama leen di ñaan ci yar ak teggin xoolaat leen seen taxawaay vous êtes des responsables et vous avez une responsabilité à assumer dans ce pays te xam ngeen ko du ngeen ay xaleel te bu leen fooy seen xel mu munu leen ne da ngeen bëgg jiite réew mi réew mi toll fu mu tollu tey nii ngeen du ngeen waxtaan loolu munul nekk su ma bat ci kaw nag su ngeen ko defulee ëllëg lu fi munti am bu leen taxawaat ci kanamu askanu Sénégal ngeen ne da ngeen bëgg jiite Sénégal déet bugg leen jiite Sénégal dama ne lu kilifa diine yépp sant xam ngeen ko au passage ñu ngi nuyu tous les chefs religieux de ce pays toute religion confondue ñu ngi leen di nuyu di leen di ziar di leen di jox seen wàccuwaay te may biiralaat wax ci nee naa kilifa diine wàccoo nañu ak askanu Sénégal fu ñu naroon wax wax nañ fa ñu naroon waxal wax nañ ak ñoom lu ci des mooy que les acteurs fassent preuve de tenue et de retenue mbokk yi am na ñu bëri ñu jàpp ni que président dina def troisième mandat man mën naa juum wante man gëm naa ni que troisième mandat du am Sénégal. mais nañ ko teg ci yoon nañu waxtaan te nekk fii di jéem a xoqalante suñu biir wala tubaab di wooye se faire peur jouer à se faire peur loolu amul solo amul benn solo parce que xam nañ kañ lañuy commencer mais xamuñu kañ lay jeex naka lay jeexee kon nag mbokk yi lu tax may wax lu may wax ni dañu nar a am élection présidentielle février 2024 gis naa ci ouverture dialogue bi parce que nekkuma woon dama doon xaar ñu jox ma les termes de référence lan la ñuy waxtaane parce que man lu ma tax a jóg dem naa ni ataaya déet man naan ataaya taxuma jóg lu ma tax a jóg mooy dem waxtaane Sénégal ak lan la ñu mën a def ba génn Sénégal ci guutu bu mu nekk nii am nañu bokk ci beneen boor bi ñoo xam nag lu leen tax a jóg ñoom ñu ne daal dañu xalaat que mandat président dañ ko nar a proroger ñii ne un an ñii ne deux ans ñun d' accord ñu si tey duñ si mës a d' mbokk yi bu leen jox gaañi yi wala prétexte pour ñëw na leen dëkk bi dafa instable mënuñu fi organiser élection bu leen ko def xel mooy xeex xol du xeex am na dëkk bu sorewul Sénégal mënuma tudd turam président toog na fa dix ans musu fa am élection ndax lan ñu ne dafa amoon une rébellion dans le nord de ce pays bu leen jox gaañ yi excuse parce que gaañ yi ñu ngi dem te bu leen nangu gaay di dem di ñu yóbbaale parce que réew mi ala kuli al ñoo ko bokk te lu ñu bokk dañ koy pencoo duñ ko pàccoo lu ñu bokk dañ koy waxtaanee duñ ko yàq-yàqet kon nag mbokk yi damay bañ a guddal mais fu may daaneel tamit mooy aux forces de défense et de sécurité ñu ngi leen di masawu tamit ñu ngi leen di jaale seen mbokk yi fi jóge te metti ci ñëpp wante yéen tamit ñuy sàkku ci yéen euh, yenn yi su mën a ñàkk wax dëgg yàlla ngeen def seen kéem kàttan mu ñàkk parce que yéen yaa leen choisir def maintien de l'ordre maintien de l'ordre mënul ànd ak bouclier humain dañuy waxante dëgg mu mënu leen dem jëli xare bu ndaw mais da ngeen di ko utiliser comme bouclier humain loolu rafetul ci image du Sénégal ndaw ñi tamit ñi manifester vous exercez certes un droit mais bàyyi leen ci dara ñu nekk ci mbedd bi ñoo xam ay policiers lañu ñoo xam ay gendarmes lañu du ñu ay chinois ay sénégalais lañu nous sommes de voisins nous sommes des parents dara jaru fi yenn yi nañ koo rafetal parce que lu jeex jeex na te lii jeex na buñ koo yàq nañ ci ànd ak xel nañ ci ànd ak dal. nañ ci ànd nag ak fermeté parce que su suñu demee ba egsi fi tey nii c'est parce que wolof njaay nee na lu ëpp tuuru moo tax président Macky Sall fu may daanalee mooy bàyyil xel ci loolu la Sénégal ji te xam nga fu ñu lay xaaree te wax naa la ko comme ne nga nañ la ko ñaan ci njëkk man mii Barthélémy Dias ñaan naa la ko ñetti yoon ci njëkk en tant que maire de Dakar en tant acteur politique en tant que jeune frère mbokk yi loolu moo nekkoon kàddu di ñaan yàlla di suñu borom yàlla na yàlla yokkal sutura Sénégal yàlla na yàlla aar Sénégal yàlla na leen yàlla may tawfiix bonsoir Sénégalais d'ici et d'ailleurs je viens vers vous aujourd'hui pour pouvoir échanger et communiquer sur la gravité de l'heure À l'entame de mon propos, je souhaiterais présenter mes plus sincères condoléances à l'ensemble du peuple sénégalais. Mais surtout, dire toute la peine qui nous anime en tant qu'acteur politique, mais en tant que citoyen sénégalais lambda. Chers concitoyens, l'heure est grave. Mais nous devons faire confiance au génie du peuple sénégalais Nous avons toujours vécu des moments, certes incertains, mais nous avons toujours trouvé la force de nous relever et surtout l'intelligence pour pouvoir dépasser certaines situations. Aujourd'hui, je ne souhaiterais pas commenter cette parodie de justice qui a plongé le Sénégal dans cette situation chaotique et malheureusement incertaine. Nous avons toujours dit que la justice sénégalaise est à l'origine de quasiment tous les maux dont souffre actuellement le Sénégal. Cette justice, je ne parlerai pas de sa condamnation, parce qu'il n'y a pas de condamnation. Nous avons assisté à une volonté manifeste de vouloir verser dans une disqualification, voire une élimination, d'un acteur politique de premier plan. Et je voudrais dire que nous sommes aujourd'hui au troisième, voire au quatrième cas. Et ça ne peut plus continuer. Et l'objectif recherché dans cette parodie de justice, c'est de les voies et de créer les conditions d'organiser une sélection et non une élection euh, en 2024, surtout concernant l'élection présidentielle qui est tant attendue, tant attendue par le peuple directement Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky de problème juridique concernant les hommes politiques. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est la volonté d'un homme qui est en train de s'abattre sur, sur d'honnêtes citoyens, sur des leaders politiques qui n'ont peut-être commis qu'un seul crime, c'est de nourrir une ambition de servir leur pays. Et cela n'est pas honorable dans une démocratie qui se respecte. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président de la République, je prends l'opinion nationale et internationale à témoin. Vous avez, lors de l'ouverture national Vous avez, concernant la question du troisième mandat, vous avez dit que n'a qu'à vous le demander en tout respect et en toute courtoisie. Et qu'il n'est pas question que vous acceptiez que certains vous le demandent par la force. Monsieur le Président de la République, pour la paix au Sénégal, nous sommes prêts, nous, à nous mettre à genoux. Parce que vous avez la clé aujourd'hui entre vos mains de la sortie de crise de ce pays et personne d'autre. C'est vous, Monsieur Macky vous, président de la République. Alors, comme vous avez demandé à ce qu'on vous demande, s'il vous plaît, de ne pas briguer le troisième mandat, je vous demanderai trois fois, s'il vous plaît, Monsieur le Président Macky d'évacuer cette question concernant cette volonté qui vous est prêtée de vouloir briguer un troisième mandat. D'abord, je vous demande, en tant que Je vous demande, s'il vous plaît, en tant que jeune frère. Le Sénégal ne mérite pas ce qu'il est en train de vivre présentement. Le Sénégal ne mérite pas aujourd'hui de vivre cette souffrance qui nous est imposée au nom de la bêtise politique, et excusez-moi de cette expression. Deux jours de manifestation, 15 morts, injustifiables et inacceptables. Nous avons été Nous sommes et nous comptons rester ce modèle de démocratie sur le continent africain et à travers le monde. Et président, monsieur le président Macky vous avez la responsabilité historique d'accompagner le Sénégal à continuer à rester debout, droit dans ses bottes. Parce que le peuple sénégalais, en votant pour vous, n'a pas voté pour être massacré, n'a pas voté pour être humilié. Le peuple sénégalais a voté pour vous en espérant pouvoir compter sur pour conduire le Sénégal vers un développement durable et viable. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président de la République, je vous interpelle directement. Je vous invite à prendre vos responsabilités et à vous adresser au peuple sénégalais. Rassurez le peuple sénégalais. Prenez l'engagement de respecter vous-même vos propres engagements envers le peuple sénégalais, surtout lors du référendum que vous avez eu à organiser en revisant la Constitution du Sénégal, qui, vous l'avez déjà dit, et vous l'avez répété aussi bien au niveau national qu'à l'international, ne vous permet pas de prétendre briguer un troisième mandat. Parce que cette question, Monsieur le Président de la République, de votre volonté qui vous est prêtée, de vouloir briguer un troisième mandat, est à l'origine de tout ce qui se passe actuellement. Monsieur le Président de la République, vous n'avez pas le droit d'éliminer la vérité. Parce que si le président Abdoulaye Wade, au passage à qui je rends un vibrant hommage, avait décidé d'en faire de même, je ne pense pas qu'aujourd'hui vous serez président de la République du Sénégal. C'est la raison pour laquelle je vous invite respectueusement, je vous invite une fois de plus à revenir à la raison, monsieur le chef de l'État. Regardez ces enfants, regardez ces pères et ces mères de famille qui souffrent, regardez ce pays aujourd'hui qui Je vous invite à vous ressaisir. Je vous invite à prendre cette main qu'on vous a tendue. Faites-le pour l'intérêt de ce pays qui vous a vu naître et grandir. Mais faites-le surtout pour l'intérêt de ce pays qui vous a donné tous les honneurs. Vous avez été dans ce pays ministre d'État, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, premier ministre et chef de l'État. Ce pays ne vous doit plus rien du tout, monsieur le chef de l'État. À ce peuple sénégalais, Nous avons tous mal. Mais sachez une chose, c'est que les épreuves de la vie sont faites pour renforcer les hommes et les peuples. Vous avez rendez-vous avec votre destin. Ne bousillez pas tout. Dans quelques mois, vous allez être un pays pétrolier et gazier. Beaucoup de choses changeront dans ce pays. Ne marchez pas vers le mur, ce n'est pas votre devoir. Faites preuve de tenue et de retenue, mais dans la fermeté et dans la dignité. Mais Retenez ce que je vous dis. La politique, c'est comme cela. Et c'est comme cela, malheureusement, dans la plupart des républiques bananières. Lors de l'ouverture de ce dialogue, certaines personnes, pour ne pas dire certains acteurs de certains bords, ont agité leur volonté de voir éventuellement l'actuel président proroger son mandat d'un an ou de deux ans. Je vous invite à ne pas leur donner cette possibilité. Je le répète que dans un pays pas loin du Sénégal, on a vu récemment un président rester au pouvoir pendant plus de dix ans sans organiser aucune élection, au prétexte qu'il y avait une rébellion dans le nord de son pays. Dans ces conditions, ne donnez pas à certains acteurs politiques le prétexte ou l'excuse de rester encore au pouvoir, sachant qu'ils n'ont pas droit à un troisième mandat. Faisons preuve d'intelligence,

vous dire que vous avez toujours été la fierté de ce pays, la fierté du continent. Je vous invite à rester à la place qu'est la vôtre. Je vous invite à nous faire confiance et je vous invite au besoin à nous accompagner à trouver des solutions de sortie de crise. Mais je vous invite surtout à rester aux côtés du peuple sénégalais. Mais je vous invite, vous, peuple sénégalais, sachez que chacun doit rester à sa place Et ce pays doit continuer à être dirigé par la grâce de Dieu, par des civils. Faisons preuve d'intelligence. Et je fais partie de ceux qui pensent aujourd'hui que le président de la République du Sénégal comprend la gravité de l'heure et comprend qu'il n'y a pas de place éventuellement pour un troisième mandat. Ne bousillons pas ce pays, ne détruisons pas ce pays, ne brûlons pas ce pays, il y va de notre responsabilité. Je voudrais au passage remercier tous les chefs religieux du Sénégal, toutes religions confondues, toutes confréries confondues, pour leur engagement, leur posture, leur discours d'apaisement, de paix. Leur invite à discuter, à dialoguer pour un Sénégal de paix, un Sénégal de stabilité et un Sénégal d'avenir. Et je ne terminerai pas mon propos en disant que je n'ai aucun doute qu'on saura nous relever le moment venu, sortir de cette impasse et comprendre que nous avons le devoir et la responsabilité historique de marcher vers l'essentiel. Sénégalais, Sénégalais, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.